laa ilaaha illallah ñun ñëpp ñu maase déglu kàddu sëriñ bi jëwriñu Seex Ibra ji nag moo bëgg a joxe ay cant ci ndigal liñ ko joxoon mu bàyyi ko ci sangam bu tëdd bii di yaakaari lislaam ji di yaakaari yoon wi Seex Faliilu Faal nag lañ jox kàddu gi mu bëgg koo wax ci turi kilifaam yépp ànd koo njabootu kër Cheikh Rafal gépp ak taalibe yi kon ñu maase déglu sëñ Fallilou mu di di sëriñ bi nee na asalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu asalaamu aleykum ndigalul Cheikh Mamadou Moustapha Fall muy sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye nag ci kàddu jëwriñam ji sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mii toog di jëwriñu sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda Fall di jëwriñu kër Cheikh Ibrahima Fall gépp kàddu yii sëriñ Fallu nee na mu yëkkati day kàddu ndigal waaye du kàddu yu ñu war a yëkkati ndax fii toog ci sëriñ Touba buñ fi ñëwee danoo war a yor jikkoy néew ab néew dey lu wax ci kanamu way sang ya lu yëngal benn cëritam lu xamit fenn fu ñu koy jëme du amati it genn bëgg xanaa bëggug way sang yee rek kon rikk waay murit bu nekkatee fi kanamu sëriñ Tuubaa ñun ñépp nan dellu maase xam ci ni li nu war ñun murit yi su boobaa nan mel ni ay néew waaye yëngatu bi ak xëccoo bi ak buuxante bi war nan cee amaat am njàngat ci ñun murit yépp waaye rawatina kër gii di kër Cheikh Ibra Fall nee na bu ñu ñëwatee fii ab yar bu ànd ak i teggin ànd akuk dal moom lañ fi war a indi ñun de bu ñu ñëwee bu suñ kilifa àggee ba nuyoo ñun ñëpp nuyoo nanu waaye kenn ku nekk bëgg àgg jox loxo sëriñ bi nee na loolu du yërmande. du ak dal ci sëñ bi moom ku ne xam na ni fa suñ boroom moo nu fa nekkal mi ngi ni toog nee suñ boroom dey àdduna jëpp bu nu xëyee ku ne da nga xëy tàllal ko sa loxo moo xam ngay ngootoot moo xam ngay mbindeef mu mën a doon te yàlla dina dégg lépp te it dina gis lépp te lépp dina ko delloo te sëriñ Tuubaa mii toog mooy suñ borom fi ñun mu nekk ci ëtt bii toog ñu jàkkaarloo ak moom ak ñi nekk ci kër gi ak ñi nekk ci pénc mi ak ñi nekk ci àdduna bépp ñoom ñépp ak ñun ñii jàkkaarloo ak moom lépp la yemale Cheikh Mountakha Mbacké nga gis lépp mu ngi yëg lépp kon bu ñëwetee fi moom waratunoo am genn bëgg lu dul ak bëggam kon sëriñ Amdi Faal moom sëñ Modou Mbenda Faal ci kàddu jëwriñam ji muy sëriñ Cheikh Faal ak njabootu Cheikh Ibra Faal gi mu àndal nga xam ne kenn desul fukki kër yi ak benn góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp maase woon nañ ci ndigalam la wuy si sëriñ Touba ci baatum ndigal bii mu joxoon Cheikh Ibra Faal muy baatu sikrullaahi ndax kaay leen wuyu kat mooy kaay leen jël ku mëntu ñàkk demal nga wuy ji te kaay leen wuy ji moom ku ne xam na ni bu nu ko Sëriñ Tuubaa waxee war na noo gën a rafet njort bu baax ci yépp fànn nag te xam ni moom am nan ak njéggal am na nu yërmande am nan ay ndimbal am na nañu tawféex am nañu ak texe ndax bii baat baat na boo xam ni boroom tur wi nee na sama tur wii xajul sa wara bépp jullit boo xam ni dégg nga ci aw làmmañam baat bii ñu doon yendoo mu mujj ci aw làmmañam ruuga rot mu ñibbi na kon ku nekk xam na ni booba baat moom ku ko mujjee wax rek sagru moom ñibbi naa jël Baay Faal te loolu mooy tax ak tey ak ëllëg tabaat bi kon moo ëpp lépp nee na sunu waajur bu baax wa dey doonoon jëwriñu Seex Ibra Faal ja ñu ko daan wax sëñ Moodu Aminta Faal nee na waxoon na ca làmbañam wa ni waajur bu baax wa neewoon na ko baat bii foo ko waxee ñetti yoon sa diggante ak sa borom dara doxutu fa nee na bu ci ñépp maase woon di wax baat bii suuf si dina tàng ba am naa féq dootu ci mën a taxaw kon baat bi moom moo ëpp lépp kon nag kii nu ko joxoon mi ngi nii toog ñim ko joxoon it ñu ngi nii toog ñun day mbàkke suñu bëgg genn la mooy suñu borom mi nga xam ne mooy def te man murid yëpp ñi nga ànd ñaan ki darajey sëriñ Tuubaa ak darajey muritam ba di Seex Ibra Faal sa jëmm ji saa borom yàggal ko fi te gën laa wéral nag bu baax a baax jàngkat yi day nee na daa xamul baat boobu ñuy wax ñu muy mujjisaat waaye sa dund gi Sëñ Muntaxa murid yëpp bul maase nañ ni bul sañoon mooy mujjisaatu yoon wi nga xam ni dañ fiy dund toog bam soob la saa borom nag lu bind am na fu mu yem waaye yow day mbàkke sa dund na aju ci sa coobare ñun waa kër Seex Ibra Faal la ñu bëgg noo ko bëgg Sëñ Muntaxa yàlla na la Sëriñ Tuubaa defaree noonu sa dund barkeb Cheikh Ibra Fall mi nu yendoo murid yëpp maase nañ di ñaan di la ñaanal loolu te dafa nan njott nag ci ñaan googu ndax lii ñu yendoo tey baatum ndigal la te ndigal nag mooy njariñ tey mooy njariñ boo liggéey ci bu ko jàmm ba jëfee kon nag Mbàkke li nga ñu digaloon yaakaar nañ ni jëfe nañ ko de ñun ndax bi ñu julli fajar ci jumaay sax moo sëñ Basiru ji lay ak moom ci kër gi bi nu sëlmalee mu ne leen ginnaaw sëlmal nan turu yàlla wi nan ko yëkkati ñun ba sëñ bi xam ni lam bëggoon ñun ñoo nga ca six heures mooyee lan tàmbali turu yàlla bi ba huit heures mooyee kaar ñu joxe ndigalul waxtu wi ñuy doog a dalloo ñi doon sikkar ca booba ñu yëkkati na tur yàlla wi nga xam ni sëñ bee joxe woon ni juróom-ñetti waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu ci ngoon ñu ànd ak ñoom yëkkati ko ba agsi fii ñu agsi nag kon ñun ñëpp rafet nañ njort bu baax te yow mii day mbàkke di Seex Muhammadul Muntaxa yaa nu waxoon ca Poroxaan ni nu sunu borom day nee na fi ma jaam bi jortu te laa koy fekk kon nag ñun Baay Faal yi jortu nan ni lin bëggoon lépp am nañ ko bés ni ki tey muy defaru tey jii ak loolu la gën jëm njégalu tey jii ak njégalu ëllëg jëm moom daal Mbàkke buñ bàyyi koo fii ci yow ci bépp murit bu kenn jëmati ci leen luy taxal ndax set nañ wicc alhamdulilahi rabbil alamina nee na sëñ bi seetal na tey ban set wicc kenn amatul benn bàkkaar ku fi jóge defaat ko yaa ko sàkku jiwaat waaye boo fi jógee mel nga ni ñaaji woon màkkate nee nan foofa kat sang ba moo waxoon ni ku ñëw fii fi man ma jéggale sa bàkkaari tey ak ëllëg kon nag ñun ñoo ngi fii ci yow yaay sunu aj yaay sunu sunu koor yaay sunu julli yaay sunu asaka yaay sunu muru koor ñun daal mbàkke ginnaaw am nan la am nan lépp kon ñun Baay Faal yi del nan gën a sant yàlla bu baax a baax bi nu amee Serigne Touba ñun ndax am sëriñ Touba rek moo di am am sëñ daam sooda lu waaye mën a am ci amoo sëriñ bi amoo dara waaye lépp lu waay ñàkk ci am sëriñ bi Cheikh Falilou Fall nee na am nga lépp kon neen li nu am nan ko xamaat bu baax te gën koo jàpp bu baax a baax te gën a topp ca ginnaaw moom mii ci bëggam gi ak ndigalam yi te di ko jëfe war may tubaab ji nga xam ni sëriñ bi da koo yeesalaat dellu ko tegaat ci loxol Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall day fas na ko yéene def ni mu ko bëggee ànd ko njabootu Cheikh Ibra gépp waaye nag ñi ci sàkku ndimbal ñu am taw féexi sëriñ bi ak ndimbalul Cheikh Ibra Fall koy defal sunu cant daal xajul ci sunuy xol xajul ci sunuy làmmañ murit yépp yëg ne Mbàkke góor ak jigéen mag ak ndaw jaam ñépp a ngi nii defarug tey daal lañu bëgg ak góor lëg ak ndimbalu tey ak ëllëg ak njégalug tey ak góor lëgee te fin ko yaakaare muy sa ci yëmm ji kon nag jaam ñaa ngi nii toog Seex Muntaxaa ñoo ngi toog cay jéggalu di sàkku ndimbal ci yow di ñaan sa murit bii fi nekk nag di jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji di sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda Fall murid yépp a ngi ñaan nga ñaanalal ñu ko Mbàkke na fi gën a yàgg na gën a wér ba lim yéene liggéeyal maamam jaar ko ci sa jëmm ji mu def ko ni mu ko bëggee tànd ko murid yépp loolu ñépp a ngi koy ñaan Mbàkke nawet bii ñuy jublu nga xam ne ñu baree bari seen yaakaar a ngi ci sunu borom mi nga xam ni moo yor yaakaar yi ak yow mi nga xam ne ci sa loxo la ko teg nag ñu dimbali ba nawet bu barkeel bu woom bu naat bu àgg rëkk te bañ a am benn ruur te lépp ñu fabaat ko liggéey la ko Serigne Touba sama am noo ngi la koy ñaan bu jógee fii daal na lépp tooy na ndox mi ñëw Mbàkke te ànd ak jàmm ak barke. lépp lu waay di liggéey nag mu doon sam nawet loole na mel ni nawet bii na barkeel na yokk na ànd ak jàmm te lépp ñu liggéey la ko sëriñ bi kon nag jàmm ji daal ci sëriñ Touba mii la nekk de yow mii di sëriñ Touba ñoo lay ñaan jàmmi tey ak jàmmi ëllëg adduna mii ñu nekk na jàmm nekk ci adduna jëpp rawatina fukki régions yi ak ñeent. di réew mi di Sénégal rawatina fa ab jullit nekk rawatina fa ab murit nekk rawatina Touba gi nga xam ne nag mooy ndeyi dëkk yëpp di bàyyi dëkk yëpp kon na fi jàmm sax dakk akuk taalibe ak yar ak teggin akuk jub noo ngi tuub nag nee na di tuubaaleel murit yëpp ci kàddu yii mu yëkkati mu bari lool te amul njariñ li am njariñ mooy lan ñu def loo woon muy sa ndigal jëfe nañ ko nag Mbàkke ci leen yaakaar ni ngeen ndigal kon Mbàkke jërëjëfati ñoo ngi santati bu baax nee di sant sëriñ bi nag murid yëpp ci woo gi mu leen woowoon muy turu yàlla wi ba ngeen wuy si ko ci kaay leen wuy moom mooy mu yi kaay leen jël sëñ bi woowoon nanu nag ni nu kaay leen jël mu murit yëpp uy si nañ ko góor ak jigéen mag ak ndaw nee na taatal nañ suñuy xol taatal suñuy ndab xam ne liñ ci bëgg yaa ko mënal te dañu ko defal Cheikh Mountakha ibnu Serigne Bassirou def ko jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. laa ilaaha illallaah la ilaha illallah